amul lu ma mus a wax sénégalais yi te amut mais ñoom lu ñuy réagir mooy essayer xool nu ñuy taqalee sama der. diabolisation bi bi ma bi wax ci pétrole bi xam nga lu ñu njëkk a def. ñu ne sénégalais yi waaw dafa am ay sociétés yu nekk ci gannaawam ay sociétés pétrolières ab journal fii. dem na ba bind waaw ab journal observateur dama koy nommé. Hmm. dem na ba bind fii à une ne Sonko dans le saldra tuloo oil moo koy fay xaalis. il a fallu que bind ne man xaw ma Sonko mosuma koo gis yooyu lañuy def cest à ci diabolisation ñoom ci loolu lañu nekk parce que ñoom xam nañ ni ñoom kenn xooletu leen bët bu rafet mais man man mii sénégalais yi yaakaar ni kii ku jub la. kii tu dëgg la kii to naag politiciens yu bëri ñoom lu ñuy def rek ba gëmloo sénégalais ni waa ji ak ñun benn lañu waaye maag ñoom du ñu benn mënuñoo doon benn man yàllaa ma ko may maa ngi sant yàlla dama jub ma wax ko fii mu leer nañ du tagg sa bopp nag musumaa sàcc alalu réew mi musumaa jël lu ma moomul musumaa dugg ci ay dil yu leerul yàlla ma ko may ma koy sant yàlla su du doon loolu Pape Ali maa ngi politique cinq maa ngi politique fii ci réew mi nekk opposant radical lu ne jaar naa ko ak ñoom jël nañu seen i renseignements généraux jël seen administration fu ne war nañ fa di enquête ci man gis nga Macky Sall soo amoon lu toll ni tarfata ayin ci man tey maa ngi kaso tarfata ayin laa wax kon ah. wax ji yëpp doo ko dégg